Itaali xam na Faranse xam na Almaañu xam na lii moo di màggal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajal soxna si ñu ngi lay ñu ngi delloo ziar euh, tur sant bi naka la man ki ne siisa laa tudd mm-hmm. ñu ñëw fekk la ci waañ mu mel yaay jëwrinu waañ wi waaw duma jëwrin bi sax waaye nag fii moom mooy kër Baay Karim mm-hmm. fii yëpp waañu Baay Karim la waaw ñun ñépp sëñ bi lañuy ñuy liggéeyal waaw mais ñun dafa ci biir kër sëñ bi dafa am fuñ fi féetee muy kër soxna lii ka di ñaareelu sëñ bi ñun ci ci ci ci këram ci biir kër sëñ bi fi lañ féete waaw fii nag moom waañam la waañu yaa lii ñun fi lañ nekk nii waa di liggéeyal sëñ bi waa liggéey bi ñu ngi ko door depuis samedi waaw samedi ba tey ñu fi di togg ka yàq añ ak reer ndékke lépp bernde di bernde gan waaw niñ koy dundee mbégte rek mhm. waaw mbégte rek lañ koy dundee mhm. ndax liggéeyal sëñ bi moom ñun ci lañ nekk mhm. mooy suñu mbégte mooy suñu lépp toog fii di liggéeyal sëñ bi di togg di yàq di bernde gan yi ñuy lekk ka naan waaw ñun loolu rek mooy suñu mbégte ci lañ ci lañ nekk ci la nekk ba faw ban message ngay lancé. waaw message bi may lancé mooy. toggukat yi. ñoom laay waxal. nay set. nay set nay sell. waaw surtout na set. sell neex. waaw te buñ koy teg ñu teg koo kanam gu leer. waaw kanam gu leer moo koy lekk. waaw ci li may insister daal mooy na togg gi na set. nay ñor. waaw bu setee ñor. benn microbe dootu dootu ci nekkate waaw te comme ça dañoo nekk ci mbas mi nekk ci feebar bi mu laaj set kon na na lépp set waaw na lépp set waaw ñu ànd ak taalibe waaw surtout na ànd ak taalibe liggéey gi ndax loo lépp looy def rek te àndoo ci ak taalibe rek doo ci am ngërëm waaw danga ci nekk ànd see ak taalibe ànd see xol gu set xol gu leer bu ko defee li ngay li ngay li ngay wut ci sëñ bi nga mën koo am waaw ñun nag ci lañ nekk liggéeyal sëñ bi rek waaw liggéeyal sëñ bi rek waaw. beeg sant bi nag la. waaw Baye Maysa Diop Baye Fall moom suñu Abdou Karim Mbacke moom suñu Fallou. Baye Maysa ñu ñëw gis dalal gi ni mu feesee nii ñu bëggoon a xam ñaata nag moo fi nekk. fi mu ne nii nag jàpp ma ko moom. waaw li fi nekk daal ci nag. ak gileem ak xar mhm. fi mu ne nii jàpp ma ko moom maa ngi ñi ngi wàcce daal maa takk rek nag mhm. waaw maa defar maa takk waaye fi ne nii moom li nekk moom mënu ma ko waaw mhm. waaw waaw euh, waaw léegi mu def fii de léegi ñu def fi ñaar léegi ñu def fi ñaar fukki fan waaw léegi ñu def fi ñaar fukki fan waaw ah, amuñu amuñu lim nag waaw amuñu lim ndax tey jii tey jii li defar ëpp na fukki nag waaw li defar fukk ëpp na fukki nag waaw moo tax amuñu lim li ñu defar ci nag ak xar ëpp na fukki at waaw moo tax amuñu amuñu lim daal amuñu lim ndax bu ngeen ko defaree day nekk lu ñuy toog kese wala dafa yoo xam ne da ngeen koy cëral di ko jox nit ñi waaw lii nga ma fekk may def lii nga ma fekk may def ne day ci ci ci loolu la jëm waaw ci loolu la jëm waaw waaw waaw waaw waaw ngi ci ñi ngi ci séddale jaam yàlla yi ñi xam ne danoo am yaakaar fii ci sëñ Abdou Karim Mbacké Sëñ Fallu dëkk ci santaan yi ak ñeneen yi ñoom lañ koy ñoom lañ koy ñoom lañ koy ñoom lañ koy jox waaw bu ñu tojee daal li ñu war a li ñu war a taale añ ba pare waaw ku ci sa wërsëg nekk rek la ci des ñu ñu ñu ñu ñu jox la ci waaw noonu la demee waaw waaw def na diir nag waaw def na diir nag waaw def na diir ndax ndax ca kër soxna may lañ ko tàmbale woon magu sëñ bi moom sëñ Fallou ba ñu jóge fa dem Gédé jóge Gédé ñëw fii nindi ci sunu kër waaw ba tey ñu ngi koy ñu ngi def waaw mu lee ne màggal gi sëriñ bi ak cant la wax te cant day laaj bernde ñu gis ne waa kër sëriñ Abdou Karim leen cee xam lool ban yëg-yëg ngeen am bu ngeen di berndeel nii waaw rek nag waaw ak mbégte bu yaatoo yaatu barke sëñ Fallou waaw fierté ak mbégte bu yaatoo yaatu ndax sëñ moom loolu la bëgg ndax nag yu mag yi nga xam ne sax dañ koy indi daf ne ñu koy laal nan koy ber di defar yu ndaw yi nga xam ne mooy yi ngir jàmm yàlla yi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi mën ci xewlu ba suur ndax bu dee yu mag yi daanaka li ñu bëgg xewlu ci ndaw la duñ ko mën a xewlu waaw nee na day leen bàyyi mag yi di defar yu ndaw yi ba mu jeex ndax ñi nga xam ne dañuy jógee fu sori di ñëw ci màggal gi di bëgg a xewlu mën cee xewlu ba suur ba pare di gérer waaw waaw waaw waaw nee na moo tox ñuy defar vëy yi waaw waaw waaw nee na bu vëy jeexee nag ngeen song nag yu mag yi waaw noonu daal lañ koy defee waaw ndax moom cant gi ak berne gi moom moo ko gën a bëgg moom waaw ndax mi ngi lijjanti nit ñi ndax lekk nañ ndax naan nañu ndax lekk nañ ba suur ndax amuñu jafe-jafe amuñu jafe-jafe moom moom moom cant ak benn gi moom dañ ko ca fekk moom waaw ah, waaw dañ ko ca fekk moom Serigne Abdou Karim waaw waaw ah, dañ ko ca kontaan nañu ban message sant Serigne Touba rek message bi moom sant Serigne Touba la rek du dara waaw sant Serigne Touba rek moom borom màggal gi ndax Serigne Abdou Karim Bakkoum Serigne Fallou moom euh, ku ne ne xam na ko ndax ay kilifaam dañ fee ne di ziar Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te wér waaw di jaar sëñ Cheikh Jëmb Fall di jaar sëriñ Abo Mbacke suñu bunt ci sëñ Fallu waaw waaw waaw waaw moom moom moom boo tuddee rek daanaka daanaka daanaka tudd nga ñëpp waaw daanaka tudd nga ñëpp waaw di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallu nag suñu yaakaar teegal ndax lii moom moom moo ne woon dina dina at mu ne mu ne dina yokk waaw te boobu ba tey mi ngi yokk ndax ci benn lañ tàmbali woon ba tey kenn mënu mënu maa xam sax li ci gerte gi kon loolu doon na sant yàlla waaw te at mu ne bu ñëwee rek dina ne day day day day gën yokk waaw waaw at mu ne rek fi mu ne damaa takk ba mu fu ma takk daanaka ci biti laay mujj di takki ci birig yi ci bant yi loolu nag moom moo ko waxoon waaw moom moo ko waxoon te loolu am na te nee na day gën a yokk kon alhamdulilah sant yàlla bu baax a di ñaan yàlla nañ ko yàgg a màggal gu nu mës a màggal suñu borom jégal nu yàlla na ci gii raw màggal gu nu mës a màggal suñu borom defal nu ci xéwal yàlla na ci gii raw màggal gu ñu mës a màggal suñu borom defal nu ci ay taw féex te yéeguñu ci yàlla na ci gii raw ci barkeb sëñ Fallou ak Cheikh Ibrahima Fall waaw kontaan nañ ci lool kontaan nañ lool kontaan nañ lool damaa xamul sët bi nag waaw 24 actu bi waaw waaw waaw waaw 24 actu ñu ngi leen di xamal ne daal kontaan nañ lool waaw kontaan nañ lool waaw yàlla na télé bi yaatu nag waaw waaw muy muy dem national ak international ci barkeb Serigne Fall ak Cheikh Ibrahima Fall nañ ci waay màggal gi mën na ko waaw yàlla na ko doo i doolay màggal gi waaw na yaatu fépp ba ñëpp yëg ko barke Serigne Fall ñu ngi ñu ngi lay fay soxna si ngàcc lañ may woowee ngàcc Baye Fall taalibe Serigne Abdou Karim Mbacké mi nekk fii féete woo wàllu matt bi man maay ndongo matt bi waaw liggéey bi comme ni muy demee mooy moom liggéey sëriñ bi da di liggéey lu lu ñu tas la kenn ku nekk fi mu la féetale ñun law àll buñ koy wax dañ naan law bee tax matt buñ koy wax dañ naan law bee tax ñun ñi nga xam ne ay ndongoom lan te dooni lawbe ñun lii mooy suñu cër ci màggalam gi waaw képp koo xam ne màggal si na ñëw ñun ñoo lay jox matt ci mbaaxam li may faral di wax rek naan ko mbàkke ñoo lay goral ñoo lay xaral ñoo lay xambal mbàkke seytaal du fay waaw ndax moo ñun moom la ñu yaakaar àdduna ak àlaaxira doo lay maam seera li fi wàcc nag bari na ndax am na ay camions yu mag am na ay camions yu ndaw waaw waaw lépp ci bis bi bisu sëñ bi rek waaw loolay maam Seera waaw yëg-yëg bi ma am rek mooy mooy yëg-yëgu Baay Faal yëg-yëgu ndonga mooy jugg nañ ci bis boo xam ne maam bu la rawee ren déwénati rek kon li nga li nga xam ne moom moo fi nekk pour ñu war koo mën a jot nanu jaar ci yoon wi nga xam ne moom moo ñu koy may ndax li fi nekk daa am yoon wu koy maye li sëriñ biy wax rek léppam da cee jiital yar ak teggin ak i ma mooy liggéey sëñ Abdou Karim mbaake bi muy jikko ju rafet ndax biñ fi ñëw amaana meloon na neneen suñuy kàddu meloon na neneen wante léegi suñu borom dimbali nañu tàggat nañu tàggat goo xam ne am na loo xam ne mooy bala ñoo wax sax dañ koy xalaataat di segg di xalaat lu gën a rafet nu mu gën a baaxee lim naan li ma leen di jàngal mooy koo leen fekk ay kàddoom gën a rafet gën a sell gën a yiw nangeen ko topp koo leen gis ay kàddoom ñaaw amuli worma bu leen ko topp te bu leen ko déglu ndax da leen di yàqal waaw. waaw loolu ñuy wax naan rang-rangaan bari bagage xoromu lool saf yàlla dooley sëñ fallu waaw taw féex rek ndam ak moroome salaatu fi kulli sayrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام